لي سكينة بكل الجنة من داري من يا فالمنة لي سكينة بكل الجنة من داري من يا فالمنة الله سبحانه وتعالى على هذا نرجو من الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم كل الأعمال وأن يجعل هذه الأعمال كلها خالصة لوجهه نرحب بكم دوما في نواكشوط ونسعد دوما بلقاء أوجهكم النيرة نفرح بلقائكم كلما رأيناكم أو سمعنا عن أخباركم قبل المولد وفي هذه الفترة الزمنية لدينا خصوصية هي وجود الخليفة العام رغم أننا لنا خصوصية مع كل من تقدمه من المشايخ والخلفاء لكن لنا خصوصية مع الخليفة العام الشيخ منتقى وهي خصوصيته مع الموريتاني ودراسته في محضرة المختار والبلول هذا أيضا أمر خاص مع أن العلاقة بيننا وبينكم بين العلماء والمشايخ لا يزيدها شيء ضاربة في التاريخ الحمد لله وهي هي العلاقة الحقيقية الباقية الماضية والحالية والمستقبلية والحمد لله اللي هي عامل انسجام ووحدة ولكن هذه المرة تزداد بوجود الشيخ منتقى حفظه الله لأنه درس كما تعلمون على العلامة الجليل المختار والبلول وهذا مما يزيدنا تأكيدا على تأكيد في الحضرة المباركة مرة أخرى أشكركم وأشكركم أيضا قبل الختام على هذا المؤتمر الذي سيعقد في نواكشوط فهذه بادرة حسنة أشكركم عليه نشكر الخليفة العام الشيخ منتقى وكذلك أيضا الناطق باسم الأسرة الشيخ بشير ونحن هنا إن شاء الله تعالى سنتعاون معكم إن شاء الله وإن شاء الله تعالى نكون في عونكم في كل ما تحتاجونه من أجل إنجاح هذا المؤتمر وأشكركم مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ما دef talxiis li nga xam ne moom la suñu mbokk mi Maali al Wazir as sayid ahmadul dahl daawud mi nga xam ne mooy wazir chuun al islami wa taalim al asli fi l jumhuria al islamia al mauritania shaqiqa euh, li nga xam ne moom la sunu mbokk mu baax mi doon wax léegi bi di ministère bi yor wàllu lislaam ji ak njàngaleem cosaan mi fii ci réew mi mooy ministère rek bi ñu dénk diine ji ndax lépp lu aju ci diine ji ak gi lépp moom moo ko jiite di boroom xam-xam bu mag nee na mi ngi sant bu baax mi ngi bég bu baaxit ci délégation bu tedd bi jóge Touba jóge ci Cheikh Mouhamadoul Mountakha ci sëñ Mouhamadoul Bachir Mbacke ibnu Cheikh Abdoul Khadir jiite ko ak bokk yu tedd yi nga xam ne dalal na leen tey jii fii ci biroom nee na bég na lool santi na lool xelam gën naa dal di rafetlu bu baax a baax taxawaay bi nga xamante ni Touba am na ko ndax nee na ñu xam ne Touba ak Mauritanie ak lu bari sax ci réew yi ñoo bokk lu bare bari ñoo bokk lépp daanaka ñoo bokk pas-pas ñoo bokk mazhab ñoo bokk façon tasaw tasaw fi benn boole leen nga xam ne kon nee na day mel ne lu ñu boole rek la ñam waaye amul leen lu ñu tàggale ndokk nag bi nga xam ne nee na ku ne xam na ne Mauritanie ak Touba Touba mooy ëpp cëram nee na naka jëkk loolu mi ngi am waaye nee nag jamono yi ñoom na ñoom Mauritaniens yi bu leen neexee war nañoo a wax ne ñoo aaye li na mooy na ku ne xam na nag nee na ci seen i jaar na ci seen i daara nee na loolu kon ñoom amaat nañ beneen cër bu bees ci Touba nee na loolu lépp di gën a bégloo euh, di rafetlu it bu baax nee na projet sëñ Muntaxa yi nee na ak yitteem jëm am jëpp nee na ñoom dégg nañ ko ci yitte ji ci ëpp doole mooy njàng mi mu fas yéene yaatal ci niveau bu ci ci melokaan wu kawe muy daara ju mag gi muy waaj a tabax taxawal ci Touba muy façon taxawal dundal xam-xam bi mu bëgg bépp nee na jot na ci xam ngeen ne sëñ Moustapha Diatara mi ñëwoon na fi ànd ak benn délégation jot na ci li ci aju lépp ak su su bu mu mun Muntaxa nee na jot na ci. lépp li ci aju ci ci daara sa liggéeyu suñu xaa boob muy waajal xam na li ci nekk lépp gouvernement Mauritanie it incha allahu taala dana taxaw na temm ngir jàppalante ci ak sëñ bi ci wàll yi nga xamante ni war nañ cee mën a jàppalante ñoom yépp incha allahu taala ñu xam ne daal moom ñooy ñi nga xam ne ñooy suñ partenaires yi nga xam ne ñoo jiitu ci jàppale ñu ci daara jooju ndax ñoo ko bokk ak ñoom bég na bu baax kon nee na it euh, mi ngi rafetlu bu baax a baax ni Touba doxee ci tasaare xam ci ndaje yu mag yi nga xam ne ñu ngi koy amal lépp ci lépp muy jëm ci daawa ak tasaare ak tasaare lislaam mi ngi tëjee ay waxamit nee na ne incha allah taala ndaje mi nga xam ne délégation tubaab bi it fas nañ ko yéene def ci palais congrès bi ajjuma ala kulli xaal rafetlu na ko lool ni ñu wax sëñ bi ne ko def nañ ko ci waxtoom waxtu wi waxtu wu ne lañ soxla lu mel nan waaye neen waxtu wi lañ ko gën a soxla ñoom nag ci seen wàll nañ xam ne mooy ministère bi ak gouvernement bi waaj nañ ba jekk ngir ànd ak ñun loolu ci tàmbali ba ba ci mujj gi lii seen yéene it loolu jàll ci jàmm jàll ci réussir mooy amee nu gën a kawe ni ñu ko bëggee ñoom danañ jox seen wàll bu baax a baax a baax ñoom gouvernement Mauritanie surtout moom ministère bi nga xam ne moom mu wax lépp rafet na waaye nag ci ñetti tomb yooyu ci ko tënk di rafetlu bu baax a baax it nu mu nu mu nu mu fas yéene moom mi ci jëmmam en tant que jëwriñ ab ministère bu nekk fii ci réew mi en tant que borom xam-xam en tant que ku bokk ci nekk ab mutasawif jàpp jëf leen jàppalante Touba muy ci ndaje xam-xam yi nga xam ne ñu ngi koy def Touba. muy ci wàllu lépp loo xamante ni rek luy tasaari xam-xam la wala lépp luy tax ñu gën a mën a xam tasawuf ci nu mu gën a kawee nee na moom mi personnellement waxuma la nekk jëm nekk waaye mu ni mu nekk ab gëstukat wa noppi na ngir jëflante ceeg ñun moo xam fii lay doon moo xam foofu lay doon incha allah lool mooy li nga xam ne tënk na ko xanaa nag di santaat délégation bi bu baax a baax di leen dalal jàmm fii ci réew mi cay ñaan mboolem yi nga xam ne délégation baa ngi koy def ci mi dégg lépp muy tukki yi ñu fiy def muy jokko bi ñu jokko borom xam-xam yi muy nemmeeku gi ñu noom nit yu baax yi fi nekk ak wàllu yi lépp rek nee na ne yàlla na ko yàlla mottali ci jàmm ci xam ne nee lu am njariñ lii rek mooy li nga xam ne moo mën a liggéeyal Touba gi nga xam ne moom lañ jóge lii rek mooy li nga xam ne moo a liggéeyal relation yi nga xam ne Touba seq ko ak Mauritanie